Voilà, peut-être un peu euh, euh, revenir sur l'importance de ce travail-là. Parce que le budget permet à la fois de savoir les recettes estimatives attendues, mais également les dépenses à couvrir. Donc c'était important pour démarrer que le complexe puisse évaluer dans les détails l'ensemble des dépenses qu'il faut pour permettre à ces structures-là de démarrer. Mais également, il fallait réfléchir sur les sources de revenus. Au-delà de la subvention éventuelle de l'État, est-ce des, des sources de, de ressources propres sur lesquelles euh, le complexe pourrait se baser pour supporter ces dépenses-là. C'est extrêmement important parce qu'en réalité, toutes les structures euh, de renom, en tout cas, établissent des, des, des budgets annuels pour dérouler leurs leur, leur dépenses respectives. L'autre aspect également, c'était que on devait également produire un extrait de manuel. L'extrait de manuel euh, est aussi important, sinon plus important que le, que budget, parce que ça euh, doit permettre à l'ensemble du personnel de l'administration qui sera là dans un moyen court terme de savoir les procédures à dérouler, en tout cas pour assurer une bonne gestion du complexe. Donc et ça, le, le marabout y tenait vraiment, parce qu'aujourd'hui, on tend vraiment à à, à, à, imiter les, les, les standards internationaux. Et c'était important que au delà du budget, que l'équipe d'experts qui a été convié à ce travail-là puisse euh, réfléchir en tout cas à définir, comme je l'ai dit tout à l'heure, les, les, différentes procédures à, à, à, à adopter euh, pour atteindre les objectifs euh, fixés. Maintenant, je le disais à la fin de la rencontre que aussitôt ce travail-là fini, il va nous falloir très rapidement aller vers l'élaboration du plan stratégique. Parce que ce plan stratégique-là devrait permettre dans, un logique de, dans une logique de, de moyen terme, trois cinq ans, de savoir les objectifs que le complexe va se fixer par rapport euh, au nombre d'apprenants, par rapport peut-être aux, aux, aux, objectifs en tout cas, aux résultats à atteindre dans un, dans, un, dans un moyen terme, mais également par rapport aux sources de revenus, comme je l'ai dit tout à l'heure. En tout cas, le plan stratégique permet globalement pour le complexe, dans, une, euh, dans délai relativement court, de se fixer des, des objectifs, mais également d'estimer de, de, en tout cas les sources de revenus sur lesquelles il devrait se baser pour, pour atteindre ces résultats-là. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je suis nekk chef de service finance UFR CRAC ci université Gaston Berger bu Saint-Louis waaw ñi ngi ñi ngi santaat yàlla bu baax tey jii ñi ngi fi daje woon euh, ci njiital Serigne Ahmadou Badawi ak ci invitation Serigne Mor Faye euh, amal fi liggéey boo xam ne travail de restitution mu jëm ci liggéey boo xam ne santoon nañu ko mu jëm ci defar euh, projet de budget démarrage complexe Cheikh Ahmadoul Khadim liggéey bi nag biñ koy door a tàmbali ñëwoon nañ fii daje fi ak sëñ Ahmed Badawi mi nga xam ne moom liggéey bi bañ ko tàmbalee léegi ñun ak moom ñoo ko ànd guddeeg bëccëg ngoon euh, ñu ñëwoon fi daje daje fii tamit comme sama naataango bi ni mu ko waxee sànq ci dubaab ngir am li nga xam ne moo doon euh, laltaayu liggéey boobu mu jëm ci wàllu information maanaam ñëwoon fi collecté fi ay information yoo xam ne comme ñun liggéey bi dañ koo dab ñu jël fi ay information yoo xam ne moo ñu moo ñu may ñu mën a defar liggéey bi nga xam ne tey jii moom lañ moom lañ doon jébbale joxoon nañ sax document bi sëñ bi fan yee xew-xew yi amuñ ci diggante moo taxoon mu waxoon ñu nañ bàyyi ba tey jii ñu daje fi ndax ñu gën a leeral liggéey bi ndax xam nga liggéey moom boo ko ko bindee ci këyit tamit dana jar yenn saa yi maanaam daje ngir gën koo leeral ndax këyit gi mën naa bañ a euh, fësal lépp li nga xam ne moom lañ ciy soxla waaye daal budget bi moom ñu xam ne mooy ni ko ñëpp xamee rek ay xayma yu jëm ci wàllu wàllu koom koom moom bu ñu ko dajalee ba noppi tamit fu mu lu muy fu muy war a dem ci wàllu dépense maanaam fi ñu koy jëlee ak fi muy dugg ci liy doxal liggéey bi liggéey complexe bi xam naa foofu tamit ci wàllu communication rek damay damay damay damay profito leeral ñi nga xam ne ñu ngi ñuy déglu ni maanaam ñu baree baree bari njuumte bi ñuy xaw a def tuuti te te te xam naa ne loolu noonu noonu la maanaam du université dong maanaam complexe la. complexe bi am na pàcc boo xam ne njàngum alxuraan la am na pàcc boo xam ne tamit euh, njàngum majalis la mooy science euh, traditionnelle di mu door a am nag enseignement supérieur ñu bare nag moom la ñuy wax rek université. moom la ñuy appellation boobu la ñuy joxe waaye ñu xam ne ñett yooyu yëpp ñoo ci daje moo tax mu doon complexe loolu moom day mat a day day mat a leeral liggéey bi tamit comme ni ma ko waxee sànq rek maanaam tey jii lañ ko doon jébale xam naa euh, biñ ci waxtaanee ak sëñ bi tamit moom am na ay gis-gis yu yu yu gën a leer suñu yos yoo xam ne jooxal na ko ci yoo xam ne dana jar bu ñu delloo ñu ñu ñu intégré ko ndax ñu mën a joxe benn document boo xam ne mooy mooy doon document final bi am na tamit benn mémo boo xam ne defaale nañ ko muy wax tuuti ci ni ñuy ni ñuy ni ñuy doxale ci ci wàllu fonction fonctionnement surtout finance ak administration boobu tamit am na liggéey bu am solo bu ci mbokk taalibe yi def xam naa boobu tamit dana jar euh, ñu ñu ñu finaliser waale ko nga xam ne document bi buñ koy buñ koy joxee ñaar ñëw ñëpp ñooy ñooy ànd ñu mën koo jébal sëriñ bi waaye daal ñu ñu xam naa dañuy tëje ci foo xam ne moom la ñu waroon a tàmbalee muy muy ñaanal sëriñ bi sëriñ Mountakha ñu ngi koy ñaanal suñu borom yàggal ko fi lool te wéral ko ba naal yii nga xam ne yëpp sumb na ko te bii bokk ji te te boo doon yi ko gën a yitteel moom suñu borom defal ko ci tawféex yoo xam ne dana dana ko ci am ak i ndam fekke ko ci gudd fan ko ànd ak wér lool ak eh, mboolem ñi nga xam ne ñoom la àndal liggéey bi te ñun ñii ñun ñi nga xam ne ñoo doon liggéey liggéey bii ñu gën cee jàpp gën cee ràññee sëñ Ahmed Badawi mii nga xam ne ni ma ko waxee sànq rek maanaam guddeeg bëccëg suba ngoon ñun ñooy ànd liggéey bi ak sëriñ Mor Faye mii sëñ Mor mi it naa ko beral ak can ndax moom euh, daanaka heure bu ne sax lañ koy woo moom amul amul téléphone am duñ ko tëjal liggéey moom wax dëgg yàlla taxawaay boobu lañ taxaw xam naa ci sant yi tamit sëñ Bousso mii tamit <laughs> danaa ko ci boole ndax euh, maanaam moom tamit yaatal nañ lool ci ci ci barab bi maanaam saa yu ñëwee bu ñu ko wooyee heure bu nekk lañ koy woo tamit te te dañuy yaatal xam naa moom day day sofu ci ci ci li ñu waroon wax sax waaye nag day baax tamit ñu ñu ñu joxal ko tuuti asalaamaaleykum wa rahmatullah ñi ñëpp man Babacar la maa nekk chef des services administratifs bu UFR maanaam département sciences de l' éducation de la formation et des sports bu université Gaston Berger bu Saint-Louis euh, man la Moussa Diouf directeur de l' audit interne bu université Gaston Berger bokkoon ci commité des experts yu ñëwoon fii. di xalaat ci wàllum projet de budget bi waaye comme nu ko sëñ daali ñaa waxe ñun ñëpp nañ sant sëñ bi bu baax a baax a baax parce que projet complexe xaadimul xaddim bii maanaam Sénégal d'ici fanweeri at mu dana bokk ci réew ñi raw ci Afrique parce que réew dañuy naan soo ko bëggee defar tàmbalil si tuut tànk ku jël sa tuut tànk yoral la ba université ci wàllum xam-xam ci wàllum yar ci wàllum liggéey donc kooku am kenn amul fayam donc nag lii ñu ngi siy ñaan képp koo xamante ne si ndaw ñor na la réew pour mu dem il faut pour nga tabax réew il faut nga tàmbali ci ci tànk yi donc sëñ bi wane na yoon bi donc ñun ñëpp nañ nañ si jaar bu ko defee fii ak ay at suñu réew gën ci réew mi donc loolu moom wax dëgg yàlla ñu ngi si sant sëñ bu baax a baax a baax a baax parce que wax dëgg yàlla mu ngi ñuy defal mu ngi ñuy defal suñu àdduna di defal suñu àllaaxira parce que tey ñun ñëpp képp am nañ njaboot mais suñu sañoon suñu njaboot mu ñuy gën donc ku la ibbil bunt boobu amoo payam donc loolu moom wax dëgg yàlla loolu moom sama xol laa tibbee yàlla ñu ko yàlla fayal loolu moom yàlla ñu ko yàlla fayal jërëjëf. matula man maa ngi tudd Mor Faye professeur Mor Faye euh, nekk membre commité de pilotage élargi euh, complexe Ahmadoul xadim mooy kuréel gi nga xam ne nii euh, moom la mun taxa taxawal bi mu tàmbalee projet bi sëñ Ahmad Badawi jiite ko ak euh, mbokk taalibe yi nekk ci raw doyen ak euh, jàngalekat yi dëkk bi léegi foofu laa bokk di rafetlu lu baax a baax a baax liggéey bi ñu bokkaat tey ahousubillahi min a irajim bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabil alamin wasalatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. maa ngi nuyu jataay bi bu baax waaye di ko tàmbalee ci sëñ Ahmadou Albadawi di ko nuyu bu baax di ko ziar di nuyu mboolem ñi nga xam ne ñoom laa fekk ci jataay bi te ñoom ñëpp alhamdulilah di ay kilifa maa ngi leen di nuyu nuyu bu gën a yàlla ci ñoom leen ziar bu baax ah, ah bi nag dafa doon jataay boo xam ne dafa euh, sofu sofu ci jataay yi nga xam ne moo daa am ci invi ci doxeenu euh, université Cheikh Ahmadou bi ndax bañ seetee euh, université bañ ko tàmbalee xalaat ba nëgë waxtu wu nekk bañ ko tàmbalee xalaat ba nëgë ni waxtu wu ne jataay yi ñu ngi doon am moo xam muy ay commission wala muy jataay extraordinaire yoo xam ne dañ ci woo ñeneen waaye waxtu ne jataay mës sa ñàkk am kon bu amee tey jëm ci wàllu xayma ci wàllu finance ak budget eh, itam dafay mel ne dara ci jataay ëpp solo ci la bokk ndax nit mënul di ndox eh, ci lu mel nii te waajaloo budget am waajaloo nan nga mën a def ba am noo ko noo ko noo ko yore eh, boo fexee ba am ni nga ko yore it dafa baax nga xam Euh, ba am ni nga ko yore dafa baax nga xam ni nga ko yore dafa baax it waxtu nekk nga xam li nga ca weesu foo ca tollu ak la nga ca jublu ci sa kanam nu mu war a tëddee kon ndoor mooy jotaay bi ta loolu te loolu mënta ñàkk te loolu lu am solo la lu am solo ndax li jiitu lépp def nañ ay euh, commission yu bari waaye jëm ci wax ci wàllu éducation wàllu wàllu académie bi wàllu njàngale bi wàllu études yi yëpp def nañ ko tubaarkalla macha allah. yëpp tegu na ci yoon bu dee ci wàllu tabax gi alhamdulilah lépp mi ngi gën a tegu ci yoon saa su nekk euh, waaye loolu lépp nag li nga xam ne mooy tax mu mën koo mu mën a taxaw ak tànkam yu dëgër loolu mooy jataay bi ak di ci juddoo kon jataay bi jataay bu am solo la ñu leen ci nuyu bu baax leen ci ndokkeel bu baax di ñaan yàlla mu ubbi ci jàmm waaye jataay bi itam jur njëriñ yi nga xam ne moom lañ ci doon seenu dañ jaajëfal yéen ñëpp seen coono ak seen déplacement ak seen xam-xam bi yéen indaale te nar ko fay yónnee ak yéen a juree ji loolu lépp ñu ngi leen ci ndokkeel leen ci sant bu ci gërëm ci turu sëriñ bi. di nuyu commission yëpp nag yi nga xam ne ñoo yàgg liggéey ci université bi yëpp ci wàllu étude bi leen ci gërëm duñ leen fàtte benn yoon ndax euh, yàgg na te boobaak léegi ñoom ñëpp ñu ngi ci te kenn du daw kenn du dang daay waaye ñu beral ran ñu beral nag cant. ak nuyoo ak ziar nag sëñ Ahmadou mii nga xam ne moom yàlla moom yàlla ko nattoo industrie bi ndax euh, moom commission yi dañuy bari bari da dafa mel ne amul benn commission buy daje boo xam ne moom am na droit bañ ko bañ koo teewee commission yëpp da koy teewee wala boog buñ noppee dañ koy rendre compte mbaa ci ëpp boo gisee daje commission bu ne ëpp ci say daje da koy fekk te bu ko fekkee itam daf koy assister ba ci njëlbeen ba ci muñ ko mu mel ne kon université bi nu ñëpp la war a xañ jot te ñun ñëpp la xañ jot sax xëy na waaye moom moo ci raw kon moom loolu ajana itam ñu président ñu préciser leen ko bu baax leeral leen ko bu ngeen xam fi mu toll ñaa jotaay bii kat xëy na ñàkkul ñeneen ñoo xam ne war nañ ko mën a fekke te tey jii ñu ngi nii moom moom ngeen fi gis waaye nag alhamdulilahi rabbil alamin ci ak matam ak euh, ni ko sëñ bi tànn ak ni ko sëñ bi seetloo ba tànn ko tax na doy na ñëpp doy na nu bu baax ci ci moom rek mu teew ci jotaay bi Euh, sëñ bi doyloo na ko ci ñi mu seqal liggéey bi macha allah ñoom doyloo na ko ci ba ci man mi sama bopp jotaay yi ci ëpp du ma ko fekke waaye day ak fekkeem daf may suur daf may doy sëkk ba ma gëm ne fekk googu teewalaale na ñëpp kon loolu mooy li nga xam ne mooy li am tey kon daal ci gàttal euh, liggéey bi am na solo euh, ñu ngi leen di wax waa leen góor jaa leen jëf joo xam ne soññe la maanaam di courage lañ koy tuddee waaye ma wax leen ne di courage nañu góorgóorlu bu baax gën a dem ci kanam te li ngeen wax léegi euh, maanaam jéego avenir la jéego bu am avenir la moo xam ne ci kanam incha allahu ñun ñëpp daanu jëriñ euh, ñun lim nuy jëriñ mooy xam ne taxawal gi bokk nañ ci ndax bëri góob mbartal boo xam ne boo tegee sa loxo boo tegul sa loxo mu dem boo ko fekkee ba mën caa teg sa loxo da ngaa kon nun lim nuy jëriñ mooy loolu ñu am ci tiyaaba ji eh, xam ne bokk nañ ñu ko taxawal waaye ña koy jëriñoo dëgg mooy suñu njaboot suñuy doom ak suñuy sët dana tàmbali sax tey balaa yàgg ñu tàmbali njaboot gi ñu gis leen ñu ngi waaye ñoo koy gën a jëriñoo kon daal alhamdulilah sëñ mi ngi lay sant la gërëm di sant commission yëpp waaye yéen ñi fi teew itam ci war a waxtaan ci wàllu finance war a ko càmbar mi nga xam noonu la war a demee dëgg-dëgg te kenn ku nekk ci yéen fa mu jógee loolu la fay liggéeyee te la mu fa yor fay la mu fay liggéey ca loolu yit moo ko jiite wala mu bokk ci ña ko jiite loolu wax dëgg yàlla sëñ Tuubaa rek mu am loolu moo mën a am loolu loolu yi loolu loolu loolu yombul waaw kon daal ci gàttal ñu ngi doolee sant sëñ bi doolee sant sëñ Tuubaa bu baax sant sëñ bi nga xam ne moo nu moo nekk ci bopp yoon wi tey te yàlla dogal xalaatam bu njëkk ci biir liggéey bi muy liggéeyal sëñ Tuubaa nekk ci bopp bi liggéeyam xalaatam bu njëkk di lii di université bi ngeen ñëw jàppale ko ci yéen ñëpp kon moom it ñu ngi koy sant waaye ñu ngi leen di sant ñu ngi sant commission yi ñu sant sëñ Axam bu baax a baax a baax maa ngi koy defal defal naa ko léegi ab benn compte rendu bu ndaw ci lañ doon dox ci loolu waaye alhamdulilahi rabbil alamin sëñ bi sant nañ la gërëm nañ la la jéggalu ci eh, <laughs> gàtt gi ak eh, yeex gi ñëw yëpp ñu ngi ci jéggalu bu baax a baax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi yëkkati sunu kàddu di ko tàmbalee ci sunu nuyo bu sedd bu sell bu tedd <clears throat> ak sunu bu ziar di ko jëmale ci Cheikh Mouhamadinil Muntaqa di ñaan sunu borom bàyyi ko fi te may ko wér ba li mu yéene liggéeyal lislaam ci toolub sëriñ bi lépp mu mën koo def ni ma ko bëggee te nu ko ak moom di am mbégte mu rëy ci teewaat ci jataay bi muy jataay bu am solo ni ko sëriñ maam Thierno waxee léegi jataay boo xam ne dafa sofu rek ci liggéey yi nga xam ne ñu ngi ko doon def ba sëriñ bi joxe ndigal ci liggéeyam bii ba fi mu nekk ñu yaatuwaayu liggéey bi nag moo tax mu doon ay kuréel yu bari ay commission yu bëree bari ba daanaka ay bis gu jot rek dana am ñu daje ay bis gu jot rek dana am ñu daje ñu bokkut ak ñu daje woon waaye liggéey bi moo yaatoo moo yaatoo noonu moo amee solo noonu tey nag ñi tase woon mooy ñi nga xam ne ñooy xayma koppar yi nga xam ne moom la soxla ngir mën a doxal liggéey bi ak koppar yooyu fu nu koy jëlee ak buñ ko jëlee ba noppi naka lañ koy jëfandikoo waaye tëral ay yoon yoo xam ne ñi nga xam ne ñoo koy jëfandikoo itam dana mën a am ñu nekkaat ci seen biir di ko saytu ba bu noppee nu man ne nangam lañ soxla woon nangam lañ am nangam ak nangam lañ ci def ñi ko doon def itam nii lañ ko defee mu doon lu am solo nag ci jamono ji nu toll ndax niñ koy waxee daare Cheikhuna Ahmadul Xadim daare juy jàngale la dafay jàngale mboolem fànn nay dunduk doomu aadama moo tax ni ñuy yore lu ñëpp bokk itam daa bokk ci li ñu war a jàngale fii kon lii ngeen doon def tey bokk na ci li jàngale loolu alhamdulilahi rabbil alamin ni ko sëriñ bi waxee léegi ay boroomi xam-xam daje fi yoo xam ne yemuñu ci doon ay boroomi xam-xam waaye dañoo doon ñoo xam ne dañuy jëfandikoo liñ soxla fi mu nekk nii moom kenn ku ci ne fa mu nekk ci université euh, Gaston Berger ak université virtuelle am na itam ñu ngeen di jokkal ñu nekk université Cheikh Anta ñu nekk université Bambey muy ñi nga xam ne ñoo nekk ci université sénégalais yi di yor liggéey boobu xam ni mi doxee ñoo doon tëral nag bii naka la war a doxee loolu kon ñu ngi ci sant professeur Mor Faye mi nga xam ne ci commission pédagogique bi la bokk waaye nag féete ndar gis nañ ne moom waa ndar da leen a beral loxo seenu njambaar ak seen pas-pas waaye moom itam beral na leen loxo lool ci liggéey bi kon ñu ngi ko ci sant baax di ko ci gërëm di wane ne bi Cheikh Mouhamadul Mountakha yëkkatee kàddoom am solo yooyee jëmee ko ci woote liggéeyub Cheikhul Khadim bii nga xam ne nu ñu koy waxee wax waxtu wu ne modèle éducatif wala système éducatif la boo xam ne mooy bu sëriñ bi waaye mooy bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na mu dikke woon rek am na boroom xam-xam bu tagg sëriñ bi ne ko antal murabbi kama rabbal aminu ni nga xam ne noonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon yare noonu ngay yare kon yow yaay jàngale ni nga xam ne yoon noonu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon jàngalee xarfan bi xarfin la ci teg maanaam njàngalem sëriñ bi mooy njàngalem yonent bi sallallahu alayhi kon daaray sëriñ bi mooy daaray lislaam yoo xam ne dara raxu raxu ko loolee nag moo tax ba bi sëriñ bi yëkkatee kàddoom mboolem bokki taalibe yi ñëpp jóg ak ak seen kàttan ak seen pas-pas fekk si ko ku nekk ci wàll gam amee loolee nag kon day baax loole ñuy indi itam ñu teg ko ci yoon woo xam ne ñëpp danañ xam ne li ko taxoon a jóg fii la fii mi ngi ci dem nam ca war a demee loolu kon seen liggéey bi bu ama am solo la boo xam ne ni may tooñee waxtu wu ne euh, commission bu daje man ne leen bii mooy ci ëpp solo waaye seen bopp bii nag moo ëpp solo moom loolu moom ñoome naa ko wax ci kaw mooy fi nga xam ne mënta ñàkk kon ñu ngi leen di sant baax di leen gërëm ci li ngeen def lu rëy la ndax itam bàyyi seen yitte bàyyi seen jógal seen bopp ñëw di ko def rek xidma ngir xidma xidma mooy nga def lu baax te yàlla rek tax te loolu mooy tasawuf mooy ihsaan di jëf ngir yàlla te yàlla rek tax loolu mooy li ngeen def te lu lu ama am solo la yëkkati seen xam-xam yëkkati seen i jëmm seen i tànk ak seenug jot ñëw def liggéey bu toll nii kon ci turu sëriñ bi ñu ngi leen ci sant bu baax di leen gërëm di ñaan sunu borom itam li mu dële ku jëfal yàlla mu defal leen ko ci te defal ko mboolem ñi nga xam ne ñu ngi jàpp ci liggéey bi ak mboolem ñi nga xam ne ñu ngi jëf jëf ju baax feneen wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.